une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer euh, ay juyi bismillah jël sa doom dugal ko si daara dëgg-dëgg ay jàmbar ngeen iya sifa kallabu iya sifa lanul ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله yàlla di sunu borom yónent di suñu roy waay alquran lañu àtte woon islaam ay suñu diine waay lislaam ay suñu ñu tàmbali ci bismillahi irrahmani irrahim waaye eggale it ci alhamdulilahi rabbil alamin daje ceeg ngërëmul borom bi tabaraka wa taala waaye daje ceeg ngërëmul cheikhul xadim mi nga xame ni mooy borom dëkk bi te léppam di alquranul karim alquran moom mu nga xam ni Euh, barkeel gi euh, sëriñ bi waxoon nañu ni barakatul quraani faqat zanna loolu yi tey moo ñu tax a jóg muy téere boo xam ne barke bi kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim laa tuaddu wala tuxsa barkeem dana la doy rek nga wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci ni boo nee alif laam miim borom bi tabaaraka wa taala araf yooyu le benn bu ci nekk dala ci fay fukki yiw nga xam ni boo nee alif laam miim rek dangay ngay dal di am euh, fanweeri yiw muy téere boo xam ni ba tey it bu fekkee jaam bi da koo wàcc jàng ko ba mu àgg borom bi tabaaraka wa da cay bég lool kontaan ca lool bay wax lu tolloog si tuuna alfa malek juróom benn fukki junniy malaaka ni leen hee sama jaam bii day ñaanal leen ko kontaan naa ci moom ndax kat wàcc na sama téere bi wàcc na sama téere bi malaaka yi daal di koy ñaanal te malaaka moom ku mu ñaanal borom bi tabaaraka wa taala nangu ko ndax ñoom laa yaxsuuna allaha ma amarahum waaye wa yafaluuna maa yumaruun ñoom la leen suñ borom tabaraka wa taala rek ca la ñuy nekk lam leen tere it duñ ko jege fenn fu ñu toll ña ngay sàbbal suñ borom ak di ko sellal di dox ci ay ndigalam ñooñee bu ñu ñaanee seen borom suñ borom tabaraka day daal di nangu ñaan googale kon bu jaam bi wàccee alquranul karim barke bu toll noonu mooy ñëw ci moom te mooy malaaka yi ñaanal su demee nag ba mokkal ko nag moom loola moom meneen mbir la meneen mbir la te mokkal googu nag moo ñu tax a jóg tey jii ndax bis bi dara waralu ko lu dul sargal ñoo xamee ni dañoo wattu téere bi aka koo jar aka koo jar mani ni aka koo jar ndax loo xamee ni sa doom bu yàlla dogalee mu mokkal téere bi bu ëllëgee euh, ba mbir ya jafe ba mbir ya xat euh, danga gis ñoo xam ni borom bi ko wa taala dana leen ber teg leen ci tànt bu kawe solal leen ay ndëppi wurus ca seen bopp ya solal leen ay koddaay yu rafet rafet ba ku leen gis naa ñee ñoom ñooy ñan ñee ci yéen yonantu lañ bokk ñee ñoom fu ñu jugee ñee suñ suñu borom tabaaraka wa taala teddal na leen tey jii ñu ni ah ñee de ñoom duñu ay yonent waaye ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa lañ bokk ñu ni waaw ñoom ñan la ci ñoom ñu daal ni ñee de ñooy ñi nga xam ne ñoo amoon seen doom jàppoon cib loxoom yóbbu ko ca daara ja ni sëriñ ba jàngalal ma ko alquraanul karim ñoo ñee day ñoom la suñu borom tabaaraka wa taala di xéewalal xéewal yu tol ne moo tax suñ borom tabaaraka wa taala ber leen ndax fonku téere bi ñoom ñi nga xamee nag ñoo jëleen seeni doom yóbbu leen ba ñu mokkal téere bi ñoom la suñu borom tabaaraka wa taala di teral tey ji teraanga jële kon ñun tamit suñu tàntee tànt bu mel nii def suñu kemtulaayal kàttan ngir teral ñi nga xamee ni ñoo mokkal téere bi min baabi awlaa wallahi loolu jar na ko bu baax a baax a baax cheikhul xadim ku ne xam na ko ci ni mu fonke woon ñi nga xamee ni ñoo fare woon ak téere bi sallallahu alayhi wa sallama waxoon ni euh, ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatu yàlla day su fekkoon ni day am ak njaboot wala féete kon day ñooñ alquran ñooy ak njabootam ñooy ay féeteem kon alhamdulillah bi ñu borom bi tabaaraka wa taala booleeg cheikhul xadim mi nga xam ne léppam alquran la jànge ko fépp moo baax waaye jànge ko fii nag moom macha allah dafa gën a barkeel gën a baax gën a tawféexe waaye gën a yomb ndax mbaaxu sëriñ bi la ci dugg bu baax a baax a baax ba tax na fii ci Touba li fii mokkale alquranul karim kenn mënulaa wax nu mu toll te loolu lépp barkeb sëriñ bi moo ñu ko may ñun sëriñ daara yi nañ ko sant yàlla bu baax a baax a baax a baax rahmaani rahim arrahman صباحا أن Yusuf الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرن حجة إلا ولها كتاب معلوم ما تسبح من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل على النور إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين تهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا التذكرة بصارنا بل نحن قوم مسؤولون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه سغاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها موضون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا صدق الله العظيم télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer